mbokk yi tey jii di àllarba fukki fan juróom ci weeru koor gi guddik tey di fukkeel bi guddi ak juróom benn ku ca julli ñaari raka raka bu ci ne gannaaw fatiha nga jàng isa zulzilati fukki yoon bokk na ci ngëneel naafila googi des na ko ci bindal tuyaaba ju bari des na ko jégal bàkkaaram yépp bu nekkoon ci njàqare yit yàlla dana wuññi njàqare la te dana ko wattu ci balaa yépp àdduna ak laaxira te dana ko musal ci ak ñàkk dana dolli am koomam dana wàccee ci moom yërmandeem te buy tàbbi àjjana ca ña gën ci xeet wi la ñu koy boole ñu ñaan sunu borom kàttanal ñu defee ko ni ñu ko santaane dajee ca ngërëmam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu